ñu jukki leen yi gën a fës ci biir internet bi dañu koy dooree rek ak ni ko ëttu yëglekaay yëpp rek xëye bindandoo mu di la xalif général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour nëbbul benn yoon rek maire mi nga xamante ni am na ko jëme ko ci ministre de l'assainissement di Serigne Mbaye Thiam ndax nee na moom rek moo tax rek seen retard yi nga xamante ne am nañ ko jëme ko rek ci liggéey boobu ñu doon amal rek ci jumaay Tiwaawoon ja woon na Serigne Mbaye Thiam moom moo nekk rek responsable ba daal di ca yëmul nag daal fausse justification pour expliquer ko rek li waral euh, retard boobule ndax nee na Serigne Mbaye Thiam nee na dafa yëkkati lu tolloog euh, ñaari million daal di ko jox waa Ageroute ngir rek daal di leen di justifier retard boobee nga xamante ne bii rek am na ca yooyu les euh, travaux Serigne bi nag nee na ñoom loolu du seen métier waaye kenn defatul bay gëm rek li nga xamante ni moo di rek Serigne Mbaye Thiam nekk na loolee. ngir gëm rek kàddu yooyu nga xamante ni Serigne Mbaye Thiam rek yëkkati na ko ngir daal di koy justifier liggéey boobee nga xamante ni rek tardé nañ ko jëm ci euh, jumaa joojee rek ñuy amal foofee euh, ca Tiwaawoon bu ñu rek ci ëttu yëglekaay bii di le Échos moo ñu ko xamal muy nekk nag kàddu yi euh, xalif général bi lee di Serigne Babacar Sy Mansour ñu àddu ci leneen ca diwaanu Touba fa la ñuy daal di rek euh, jubalim ñu gis nag benn xeex bu doxoon euh, ci diggante ndaw yi militant wu APR ak ndaw yi militant wu euh, parti réew mi ginnaaw rek ca boobu boobulee ndajee dañ faa gis rek mu jur rek ay gaañu gaañu yu bari mu sukkandikoo rek ci benn réunion boo xamante ni rek maire Touba di Abdou Lahad Ka daal na koy rek defoon ngir préparer benn forum boo xamante dinañ ko amal ndiki le 15 juin bi ñu dëdmal. mais boobu lee waxtaan nag dafa daal di jur rek ab xeex ci diggante rek ñaari euh, militant yooyu lee buñ sukkandikoo rek euh, ci l'observateur les militants de réew mi dañoo rek exiger la dissolution di comité de euh, pilotage di forum loolu nag la nekk rek membre yi nga xamante ni bii rek ñoo di bu APR daal di rek bañ rek ba dëdd rek ca ñaay ba ba tax na rek mu daal di jur rek ab xeex ba yenn rek ci ay parti wu réew mi ñoom daal nañ cee rek am ay gaañu gaañu yu baree bari buñ sukkandikoo rek ci ëtt yëglekaay bii di Sene News yi moo ñu ko daal di xamal. ñu àddu ci leneen gis nañu rek benn polémique boo xamante ni rek mu ngi wéy rek ci réseau sociaux yi ginnaaw rek ci audience boobu yi nga xamante ni kii di Ousmane Sonko amoon rek ci xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir jàpp ne rek kii di xalif général des Mourides dafa daal di rek wax ay kàddu yu ñagas rek jëmee ci Ousmane Sonko ngir xamal ko boppam waaye nag kii di oustaz Maodo Faye nee na képp ku yaakaar ne rek Serigne Mountakha def na loolu rek moom nee na jàpp ne ne yow li nga wax rek nekkul dara loo xamante ne nii am na ndaxte nee na xalif bi nitu yàlla la kon nag nekkul di def leen rek lu dul li nga xamante ni moo di ay ñaax nit ñi rek ngir ñu mën a rek am jàmm kii di Serigne taxa ab taxawaayam rek loolu la doon képp koo xamante ni daal yaakaar nga ne Serigne Mountakha dafa yëkkati ay kàddu yu ñagas rek jëmi ci Ousmane Sonko ngir xamal ko boppam dena rek yaa ngi nax sa bopp ki xam ne li ni mel moo di oustaz Maodo Faye ñu àddu ci euh, leneen mbiru affaire escroquerie boobee nga xamante ni rek daan nañ koy teg ci ndoddu euh, Papa bi nga xamante ni rek ab chroniqueur judiciaire la foofee euh, ca Walfu TV ginaaw rek ba mu jaroon rek ak tribunal des flagrants délits de Dakar waaye nag boobelee rek ndaje daal nañ koy renvoyé ndiki le 31 mai bi ñu dëdmal waaye bu ñu sukkandikoo rek ci le soleil xamal nañu le ñaareelu plainte boobe nga xamante ni rek Papa joxoon nañu ko ko daal dina yëkkati rek benn somme bu tolloog euh, un million de francs CFA daal di koy remboursé rek ki nga xamante ni rek moo defoon euh, ñaareelu euh, plainte ba pour fàttali rek ne journaliste ba la ñu koy toppee bokk na ci escroquerie présumée et acte de nature à jeter le discrédit sur une institution judiciaire moom la ñuy daal di rek toppee ki nga xamante ni rek moo di Pape Ndiaye ñu àddu ci leneen ci affaire duudu rek ci la ñuy daal di wax na gis nañ ne rek jamono ji nekk na euh, li ñuy gën a waxtaan rek ci réseaux sociaux yi ba tax kii di euh, Pape di Fall te émission boobule rek muy def ca 2STV euh, di good morning daal ne wax nag ak sénégalais yëpp di leen xamal ne leen ne leen yëfi tubéy daal na yem rek ci tubéy yi du pour téléphone di wane rek ne sénégalais yi daal lu bon rek ci lañ gën a mën a partager rek ci lu baax ba tax rek muy encourager kii di. ñaax yeneen yi moroomam ñi gën a moytandiku rek bu baax a baax li nga xamante ni rek moo di li ñuy def uh, ci téléphone yi ba muy man rek di partager wu di leen indil rek uh, ay jafe-jafe uh, ci seen na loolee rek tax na kii di Adamo nag daal di mer ba futtu ngir xam ne rek ne célébrité yi li nga xamante ni rek moo di soutien bi ñuy apporter jëm ci duudu nekk na lu ko metti lool ndax nee na fii daal ay naafeq kase rek ñoo fi nekk ndaxte du moom kese moo fi dafa gënu bëri na yu bëree bëri yoo xamante ni rek jaar fi waaye nag ni ñu jugoondoo rek sotandoole kii di ah, Doudou nekk na loo xamante ni rek moom naqari na ko ba tax rek mu ne képp koo xamante ni yaa ngi jàppale rek ah, du moom Adamo ah, nee na feq nga du samay kàddu Adamo rek moo ko daal di xamle ñu àddu ci leneen gis nañ ne rek kii di ah, soxna Aida Diallo moom mi nga xamante ni moo nekkoon rek soxna ah, ci Serigne Cheikh Béthio Thioune ñu di ko ñaan rek suñu borom daal di koy xaare ah, ca aljana ya gën a kawe gis nañ ne nag soxna Aida Diallo ci image yi noonu ngeen koy gisee dañ koo daal di accueillir rek accueillir bu neex rek foofee ca France fa ñuy wax rek Bordeaux jamono ji rek moom soxna Aida Diallo ma nga ca diwaanu France gis ngeen ko noonu rek ci image yi mu mel ne rek am na mbégte bu baax a baax ci noonu ñi nga xamante ni nii rek dalalee nañ ko foofee rek ca Bordeaux dañu koy daal di jeexalee rek ak triste histoire boobee nga xamante ni rek dal na médecin boobule di Baba Diagne ginnaaw rek ba mu defee woon rek ab accident moom ak soxnaam sile doon dem rek korité ji foofee ca diwaanu Saint-Louis ci lañ daal di defee rek sook ci yoonu Louga wi ba ki nga xamante ni rek moo di Baba Diagne dafa daal di rek ñàkk bakkanam rek ca saa si ba soxnaam si nga xamante ni bii rek moom la ñu daal di yóbbu rek comment également moom nag daal dina koy mujjee rek fekk ji euh, nit ki euh, démb mu nekk nag naqar bu méttee métti rek boo xamante ni dal na rek ci couple euh, jaañeen boobule ñoom ñaar ñëpp nag ay docteur la ñu woon mu nekk nag loo xamante ni nag lu métti lool lool lool la ba tax rek ñu koy jaale rek famille am di ko jaale rek képp koo xamante ni rek xam nga rek ñooñee ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax tey ñaan suñu borom daal leen di jéggal te xaare leen rek ca aljana yi gën a kawe lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig dajalay doon bu ëllëg ak jàmm